Monsieur, Madame la Présidente, merci beaucoup. Madame la Ministre, chers ministre, chers collaborateurs des ministres, j'avais noté beaucoup de choses. Mais demain, le gouvernement ma carte. y avons une opposition bi du du vote voté parce que le président Macky Sall dafa 2008 en fait. fait. Au eurobond 500 millions. fii lañ ko defee fii 2008 Macky Sall n'était pas la République te man mais donc l'ambition ambition transformatrice Macky Sall am ci Sénégal gouvernement, et Et monsieur le ministre des finances si demain parce que li en tant que gouvernement soutenabilité subvention au secteur de l'énergie mais eux, ne dafa de la bi ko boo yokkee réew yi ñu yokk nañ seen courant yokk nañ seen carburant président Macky Sall moo fi am yërmande ne Sénégal bi yokk waaye loolu tant que Sénégal bi ñu koy mën supporté duñ ko yokk waaye bés bu ko Sénégal mënatul supporté priorité nekk fépp nekk ñu fay xaar président Macky Sall bu boobaa am na sañ-sañ ñu toogaat fii ñu xoolaat naka lañ koy doxee maanaam le ministre de l'énergie ñu ngi nuyu bu yow ak ñi nga àndal ndax da nga ay doomu réew ñoo xam ne ay xale yu jàng la am xam-xam te secrétaire général xam nañ ko bu baax directeur général yu nekk fii ma jël sa rek exemple maa ngeen doon bu saar xale bu jigéen ñi bu ndaw bi am xam-xam fekk saar ci situation bu métti mu taxawaatal ko ba tey saar jox na ay capacité de production tey saar régénéré ay machine am saar pare na kon gàcce ngàlla moom Macky Sall mi ñu tànnal ay nit ñoo xam ne seen xam-xam dañ ko jël def ko ci réew mi parce que loolu moo am solo am xam-xam te yéen a ko sa loolu amul njëriñ xam-xam boo ko amee da nga koy yéene sa réew ñëw bokk ci ñuy construire le pays mais pas ceux qui veulent tenir un discours pessimiste un Sénégalais fasciste à toute vue à toute permanence loolu dafa war a dakk ci réew mi dañu war a sant yàlla bi mu ñu mayee njiitu réew mi mel ni Macky Sall

taax yaa ngi taxaw moo tax démb wax naa fii keroog ne leen bu ñu juum bu ñu jàppee ne paysans yi paysans yi tey ci ay kër taax la ñuy dëkk kër yu am courant la dëkk paysans yi tey dañuy développé secteur du transport. un excellent travail ak structures yi nga xam ne ministère Nous avons la transparence dans le secteur du pétrole et de l'énergie wax fa dëgg yàlla wër nous ko fu un mënuñ nous am ñu naan ñu Franck maintenant je comprends pourquoi nous avons wax à un certain moment qu'il y avait une compagnie qui s'appelait Tullow Oil une opposition destructrice dans ce pays parce que nous avons ne dañu foxati ay contrats pétroliers